yi gis ngeen bàkk gis ngeen ambiance bi yaakaar naa gis ngeen lépp loo xamante ni démb bàkk la waaye am ñoo nañ bu bàkk amee rek si la ñu xam xam mbër mi ñëw na wala ñëw bàkk bàkk Balla bi ñu gis ni Balla Gaye de mhm. boo xoolee mu ngi sol lu rouge waaw def tout noir waaw jiital t-shirt bu noir te lim koy def loolu bariwul noir moom bokkul woon bokkul woon ci ay affaire am démb dañu gis beneen facette Balla Gaye waaw beneen facette mu bu doy mhm. am na bu mu génne sax aj tànk waaw tous yu bees génne lu bees parce que tous dafa bokk ci làmb parce que tous bokk na loo xamante ni day mettre public bi jóg xale yi jóg mm-hmm. comme tey Ama Baldé bu tuusee rek nga bëgg Siteu bu tuusee nga bëgg Balla Gaye 2 aussi bu tuusee Modou bu ñu tuusee nga jóg mm-hmm. moo dem Balla Gaye gi keneen na lu bees ñu rek xam saa ñu gis mbaru géejawaay yëpp ànd ak Balla Gaye 2 soutenir démb bi Balla ana tent bi ana <laughs> waaw léegi dafa entraîné bu ñuul waaw ku bàyyi bar bi sëq bopp bi sëq hmm. Balla Gaye nekk benn façon nit non si parce que démb nag làmb da ko jaroon hmm. démb booy xool Balla Gaye de ngembawul fi nga xamante ni mooy këram golf lañ ko doon xaar waaw journaliste yëpp golf lañ toog di ko xaar hmm. malheureusement mu ngi kër papa yi euh, Baye Ndiaye Aziz Ndiaye fa la ngemboo waaw mu doon loo xamante ni bett na la bu ma ni bett na sax te ñu bari sax bi nee bi bi mu leen stade Balla ñu ñëw bi su bi la dindi taxaay yu bëri wàññi ko teg <laughs> parce que booy xool kër gi ba muy génn ko ñoom Aziz dafa génn taxaw ci bunt kër gi waaxu dugg dugg maam jubilé deful dara avec calme sérénité parce que démb sérénité lañ gis ci Balla mm-hmm. maam li ñu yaakaaroon Balla Gaye def ko parce que nit jàpp nañu Balla Gaye dinañ ñëw roube stade bi soow kii sëñ fa au contraire au contraire mu ñëw calme indi calme bu doy waar waaw mm-hmm. ah. mais dafa mel boo soxlaa tamit mais Tapha Tine dafa mel ni dañ ko déewoon victoire parce que Tapha même rythme moom parce que moom noonu la yàgg a taamu njuugam yooyu muy def njuug boobu muy def njuugu bawal bi hmm. bu njuugee rek bawal jóg bi mu bàkkoo ñëw nag am lam ambiance lam ah, si ambiance Pape Diouf di way hmm. ah, moom mi moom mi ngi fecc li Balla Gaye waroon hmm. def moom dafa dim bo si parce que boobu il était très confiant parce que boo xoolee ñenn ci seetkat yi yaa ngi doon dégg si réseaux sociaux ñaan ba Tapha Tine moo yor na waaw parce que soo xoolee Ah, am na ñu ni moo yor ndam. Mhm. mais dem nañ ba si géew yàlla def na. loolu mooy yóbbante gaga ubbul làmb parce que. yàlla yóbbante gaga ubbul làmb lii ñëw làmb mbër du jàpp ni yaay tànn aussi. waaw mais bi bi bàkk ñoom ñaar bi nga xoolee ñaari ñoom ñaar seen bàkk. Hmm. lan lan nga si jàngat. parce que ja si jàngat bëri na parce que balaa dem bàkk na bàkk bu neex bàkk bu cool indi calme aussi. def ambiance après dem toog bala Tapha Tine ñëw moom it bàqu facette ba mu daan bàqee hmm. na mu daan def waa Bawal defak naag ñoom noonu waaw wan leen ni je tey maa moom bés bi waaw parce que bàq dafa doon loo xam ne dafa am solo ci mbër uh-huh. parce que day yeewaat say muscle mm. nga ambiance tout bokkat ci làmb ji parce que làmb dafa am pendant mm. xaw ma nuñ ko ci tubaab di waxee avant pendant après mm-hmm. làmb dafa am lool noonu mm-hmm. te bàq dafa bokk ci loo xamante ni da mm. lay ciwaat après wane sa état de forme quoi mais teel a teel a pare mystiquement est-ce que du la teel dimbali si làmb ah! teel a pare mystiquement am na ñu naan baax na ñu naan baaxul. parce que ne mbër dafa war a tooy mbër warul warul warul wow. warul wow warul wow mbër dafa war a tooy. xajam booy xajam tooy xep. ñu gis ni kii mu ngi ci état booy jàkkaarloo bu arbitre naan prix nga tooy xep mais boobu tamit ba wow koŋ sa mbër mi adversaire tooy xep. ah gars yi foofu daal dinañ fa jàngal lu bëri ça joue quelque chose ak ko waaw dama koy egg tuuti diggante Balla Gaye ak Tapha Tine balaa maa ñuy suñu ak dama xewoon tuuti mhm. combat yi ndaw yi ak Nandi Fall ah, moom treize ans toog bëriw mais victoire ah, la nekkoon na ah, ñëwaat am Nandi Fall gros morceau mais bëri na bëri bu rëy ah non xeex na xeex na xeex na fii ñëpp tàcc non de man xaaru moo lii ci Malo treize ans la lii ci moom mhm. parce que jàppoon naa ni moo na gën a kii sax mais maa la ñëw na indi jom. waaw indi xeex. Mhm. mais malheureusement naan defaat. booy la xale la. ba dafa dem ba sonn parce que moo ay moo moo ubbi dóor yi. booy fekk si ko si loolu la dëkk dóor fayoo ko tas. mais malheureusement nag bëri na wax dëgg yàlla parce que nag dafa gëj a bëri maa la. waaw dafa dafa perte repère ba xam ne si Modou Dia la mujjee daan. si Modou Dia la mujjee daan. ñëw toog président bëri mhm. parce que. bu minaatee géew rek jeex. waaw daa gëj a bëri. maanaam dañu lay bëriwul arène nationale bi mosu ko bëree. <laughs> mu ngi soog a bëri arène nationale. <laughs> maa ngi ah. jégalu nag de maalaw mbokkum <laughs> yaay mbokkum mbokkum yaay alaaji mbay dogo dogo miti mbay saaka yaaga ah, la mbay maa ngi tuub maalaw non noonu la daa gaay daw départ alaaji mbay démb ñëw na sarax ma meew waaw ah, ma yaa ngi may sarax meew pour kan la parce que amul comprendre ah doom day maalaw la mënoo mënoo ak moto ko Abdou Diouf waaw waaw démb Malika la ngembo maa ngi koy gis ñaa koy gis ñaa koy gis <laughs> mais saa bu mun na mun na amaat beneen combat def waaw ah, pourquoi pas Malo Zos sax dafa war a mën a taxaw Malo Zos waaw Zos dafa nekk ci ci kii Zos dañ koy dóor muy daan Zos gars yi nañ day bàyyi non Zos bàyyiwul Zos du bàyyi non dóor dóor du bàyyi am na ku yooyu jël nañ da nga war a toog trois mois wala six non Zos du bàyyi Zos day bëre Zos Malo combat la Malo booyaa ngi fi dañ ko jox ci booy dañ ko jox ci booy booyaa fi bu site waaw ñoom bu fi waaw ay trois booy jinne tout waaw ñooñu ñëpp <laughs> non loolu yëpp ay làmb la gars am na foo tool ci làmb da ngay daw dépense <laughs> ah waaw man foo tool ci làmb da nga xool daw dépense. kon maa la fa tool daw dépense. waxuma maa laa tool daw dépense yow nag yow nag Fapal taxawaay ah, yow mel ni. dafa bëgg di problème man waa Kër Fala yi gis nga leen. non non waaw taxawal te sama gis nga nekk ay Mutombo ah Alaaji Mbay ay Abdou Diouf bi jëm Dakar waaw comment tey ma wax fi loo xam ne kii suba ma ñu ne moom defee yaa loolu laay bañ. loolu ngay bañ waaw kon naa la baal loolu. am na am na keneen mais maa la félicitation. mais mais ki ki nga daan muy Nandi Fall tey jii boo ko tànn adversaire si làmb. bëri na bëri na bëri na. parce que amul amul retard parce que waaw moom it am na retard. ak fu mu yegg si ak fu mu yegg si. mu jël daan ko après mu jël maanaam seeraat daan ko mais bu léegi benn dollar la ni nañ day yëg c'est vrai day yëg di wàcc c'est vrai mais instant bi nag comme te daan na maalo na jéem a maintenir ci daama jaat ci booy comme kan bëri na boo yaa ngi fi boo xool booy boo yaa ngi fi booy boo mën a dugg géejawaay bëri na mais naan di faar potilo naan di faar potilo comme ah booy potilo daa bëri doole te xale la ah mais boo bëggee daan te naan di faar démb mag moo ko doon dirigé de boo xool maalaw da ko dirigé de maalaw daf ko yóbbu daf ko sonal ci xeex boo xool boo naan di faar gàllaaju maalaw bi fii la téye ba làmb ji di jeex ba mu koy daan bàyyiwul téere bi. def rotation mhm. ko doole. parce que Malo kilifa buy bëreel. <laughs> génnal ci Malo ngir yàlla génnal ci. waaw dugg feneen. moo wax fii Seras. nee na maa eh, bëri kilifa quoi xam nga làmb am na fa tool. <laughs> dugal ci combat ban combat la waat ak ba mooy <laughs> mbokk yi. ba léegi yéen seen émission spéciale débriefing làmb. débriefing làmb mais mais fi mu toll nii. Euh, moo daan ki nga xamante ni mooy euh, Bébé Saloum. ah waaw Jacob balaa maa ngi si Jacob Bébé Saloum. Bébé Saloum Bébé Saloum parce que wax ji moo gën a dal que bëri bi. Bébé Saloum Bébé Saloum ñu <laughs> na xel dee mais Jacob si parce que. waa xam hmm. touché Sénégalais. non day touché gars yi ci TikTok fu ñu koy dugal émission boo génne émission bu mu def day dem TikTok day dem Facebook. loolu yàlla moo ko may. fasaaxa la yàlla dafa am fasaaxa. mais démb gis nañ li mu bëri li mu bëree gis nañ ñu amul doole. entraîné wul suuxam yooyu amul. waaw suux yi dafa des. booy bi daf ko jaay doole. waaw ko booy bi day entraîné. Ama Baldé daan ko doomi Ama Baldé daan ko. doomi Ama Baldé daan ko. ma kii Saalum Saalum bépp Saalum day daw def. ana mbir bi day daw dépense daw dépense leen bàyyi ci làmb daw dépense leen ba ci làmb benn ñëw boolaat benn wala benn kii da ngay jël dañ waxante dëgg man mi nii nii nii wax ak yow ni suba suba ku tegal deux millions damay bëri eh en tant que reporter <laughs> boo xoolee li soq def démb rek ku ma tegal mooy bëri. en parlant de soq mais Jacob Baldé lu ah. avenir bu Jacob Baldé si lamb tamit ah. parce que Jacob Baldé mi ngi si ay victoire ah Jacob waaw dafa daan booy. daan daan daan daan match daan kii. daan alburi daan alburi bëri kii démb xeex ak alburi. waaw mu ngi koy wax démb dafa ñëwoon pour xeex. waaw démb dafa ñëwoon pour bëree. parce que mm-hmm. bu dee xeex wane na boppam ci alburi. waaw xeex na ak alburi yóbbu ko. naqaree daan la daan naqaree daan la daan. Mm-hmm. te bu ñëwee daan bébé Saalum mm-hmm. du ñu bett. instant bi lenn moo fi am nga dem ci mag ñi. Jacob Balde Jackson. alburaax loolu combat du ko dàq. Jacob Balde Jackson dafa daan soq. waaw te dem dafa niin ak maama la dëgg la. Jackson Lagrose moo ko daan. waaw. wala kon dañ bëgg. Euh, Lagrosse ak Zakop Lagrosse ak Zakop tamit. combat la combat la loolu yëpp ay xeetu combat yu neex la. Albourakh daal instant moom mi ngi xaar parce que Albourakh mi ngi ni xippi di xool parce que saison tëj na. Mhm. mais mi ngi xool combat diwin nan la koy tëggee parce que booy bëri euh, saison bi yëpp dañu wane seen bopp. si ñi si daan ak ñi si daanu ñëpp boo xoolee li si njaaku lu ko indiwaat si làmb dafa bëri ba daanu mais avec la manière. Mhm. fexe ba amaan combat si diggante bi dóor jos mu daanu kon boo xadda si làmb diwin yi nga mhm. xamante ni làmb yi Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar mais fi mu toll nii diggante euh, soq ak ki nga xamante ne mooy Mama Lamine Mama Lamine amul ay problème dugg si defet yaayam mm-hmm. feebar Mama Lamine gëjoon na bëri lool Mama Lamine gëjoon na bëri mm-hmm. mooy mooy soq laahi defet la jóge soq sa nekkul démb kon da doon sóoraale defet lu mm-hmm. waa Pikine lay ñu ngi ñu ñu ngi si stade di ma xaar te waruma am defet parce que nekkul loolu la bëri si diggante moom moom Mama Lamine parce que Mama Lamine démb am lu mu leen prouvé Mama Lamine démb dafa taxaw rek di déglu soq lu soq teg mën a wax baaxul démb Maama Lamine moom lañ tàccu ba diaspora waaw kuy tàccu Maama Lamine nga tàccu démb waaw parce que démb Maama Lamine il a prouvé mhm. démb Maama Lamine dafa bett mhm. man jàppoon naa ne sama xel bu gàtt mais nag Maama Lamine ku ko xamul dégg nga ko ci agressif ba Maama Lamine ci xeex ba waaw Maama Lamine ca fit ga mhm. li muy ndaw ndaw ndaw ndaw gars ëpp ñu ko fit mhm. lu muy ndaw ndaw maama Lamine tolof tolof fa ko dal rek mais heure bi waroon na romb fii ci làmb tey moom nga doon dégg jàmm gën waroon nga dégg daani maama mhm. tey si tamit ngay dégg jàmm gën tey tey tey mu occupé ko maama Lamine heure bi da nga ko doon déggee noonu mhm. muy bëre ci kaw maama Lamine il a fait un très bon carrière carrière bu exceptionnel bëre fekk ay ndaanaan xeex fekk maama Lamine champion la de ñëw nag war a bëre soq waaw soq nekk si dynamique dañuy bañ teg la defetam man du ma ko wax parce que dañ ma cee woo di ma ci menacé dëgg yàlla def naa ah, émission mais mais mais mais mais defet foog ñu wax bëgg dee moo njaay ak Modou Mbaye man ko soq daa teg la defet waaye nit soq woo ma téléphone ni ma war moon wax loolu mais lu tax doo ko wax ah man ah, di xaw ma neen tegul defet parce que soq ku mujjee daan sax soq ku la mujjee daan maar la mujjee non maar après maar am na ku mu bëreel de soo ko tamit damay fàtte sa ay mbiram. géey la daan. Ah, daan daan bëreeg Marley nii la Marley parce que depuis daal maam tolof tolofam yi lii gars yi di bañ depuis ba mu bëreeg franc ba léegi franc ba léegi la kenn xamatuñu soog lu bari parce que escalier la tegu instant bi day wàcc parce que instant ku wàcc ku waroon a bëy ak fils de balle soo ko fils de balle la waroon a bëri combat bi échec mu mu jël maama Lamine ci comme de bu confirmé woo ko. Euh, euh, est-ce que fekk ju métti parce que Mama Lamine démb ku ko xool xam ne démb moom dafa ñëw pare mystiquement moralement tactiquement physiquement. soo ko xeex bi poids bi mu yor mu ngi entraîné nag gaa parce que maa ngi koy gis euh, fan yëpp ay STM muy ànd ak kii comment comment dire xaadim ndax ko ëmb seen. waaw xam ñibbi seen ñoom ñaar ñoo ñaan di entraîné da mais forme soq. soq na dégraissé waat yaramam soq dafa war a entraîné ba jeex tàq ba toll ni yow. ah kon lu baax de. parce que non maanaam soo déggee ba yow si caas ci ci ci parce que boo xoolee cokku. électromusculaire. électromusculaire en plus démb. bi ñu gis daal vraiment soq waru woon bëree noonu a maam. kon lamb comme carrière daal mi ngi def nii quoi mi ngi mi ngi tax di fay. Ah, daal dama ci wax lu ma leer parce que caay. foofa foofa foofa non oui ma eh, yow. man man la ma ma xam ne le problème. dara du xew Pikine ah. dafa naqaree wax. xam nga ah, Pikine naqaree wax. barki Serigne Afia Mbacke Pikine dafa naqaree. waaw Sokh nag ku bëggoon combat bi la de. si ku tegoon combat bi ci bakkanam la woon. mais Sokh maa ngi dégg démb yenn booy di ko toog naan moom lañ jox communication Pikine man leen teel na il communique bien nag mais bu la ko jox communication ba leen ko mu prouvé ba ci kanam suñu grand Sokh comprendre léegi démb mu ñëw waroon a bëree démb Sokh ni mu bëree ak la Lamine dafa des. lan la waroon def te def ko. Sokh waroon toog ci tànk yi jàpp Mama Lamine indi bëre imposé ko mais Mama Lamine di ko dóor soq di arrière li muy arrière dañu ko wax soq ku ñu la dëkk dëkkul feneen ah te ko waroon a dem nekkoon si dinaan bi waroon a dem yoonam soq yooyu li ma am Pikine kenn amu ko fi moo njëkk soq moo fi bëre national moo fi ko arène nationale midi dëgg la soq moo fi def open press fii ci terrain bi Abdoulaye Timbo autorité Pikine yi mbaru Pikine yi ñëpp génn. dëgg la 100 pour cent ci lañ créé dëgg la Sokk moo ci bénéfice wu. dëgg la. loolu duñ ko fàtte moo war a bëri waaw dem di laamisoo. Pikine te ginnaaw am na booy koy judd. ba presse. le géant. <laughs> comme dinañ ñëw si moom donc am na combat bi koy xaar bu mag. boo xam ne digg na combat l'expérience face à la. mais presse nag kii nag Sokk lépp luñ si wax pour ko parce que Pikine. dañoo bëgg victoire. Mhm. man waxuma ko en tant que ay kii dama wax pour pikinois yi. parce que mhm. pikinois yi dañu bëgg. mais dafa machine dafa machine. dafa machine te machine kenn du ko tegle. waaw waaw que boo xoolee Maama Lamine ñëpp dam jàpp Maama Lamine dafa tawat. Maama Lamine ci ay la ne woon problème war na mën a bëree. mais ci ma si félicité parce que Bandia xool na ma situation Maama Lamine mu tëggoo ko combat pour pour mu pour mu. waaw pour mu jóg. instant maam la mel nii ci kaw la jëm de. waaw mi ngi baax. instant bii nii na ko booy jël booy dañ koy jël moom naan di faal ak ak maam la mel combat la. non non si. ah ah bañ loolu maam la mel na xool yeneen booy. comme que am na booy yu am coow yu mu parce que soq soq yow yow naan di faal ku mu bëreel maalaw la bëreel. waaw da mais daan na maalaw. mais mais kan nga yow kan nga jox moo gën a dem soq soq mu ngi ci kaw soq waa loolu bu toll ni soq mi. waaw léegi yow fi mu toll booy booy tànn adversaire euh, nu mu tudd. kan ci Maama Lamine Maama Lamine. waaw booy yaa ngi fii booy booyu kii comment dirais-je. caatu daaw dafaa lañ fii caatu daaw dafaa lañ fii. caatu daaw dafaa booy day nekk day nekk combat la combat la Maama Lamine démb lu mu bëri dafa wane boppam. booy mënuñu ko barke Rasulilaay booy ma gis mënuñu ko. booy mënuñu ko wane ne ko ah. moom en tout cas làmb jooju daal Sénégalais yëpp nee nañ dañu war a tëggaat làmb jooju di gën a soq a tëggaat suñu bëri doyoon ci. doyoon ci mooy toog fi di leen xaar ngeen tëggaat diggante ak maam la ne kon moo wax ak yéen. na moo instant bi mooy nar problème adversaire. Mm-hmm. yàlla. mais parce que boo xoolee soxu jàkk fils de balle la waroon jël mu amoon problème ba fils de balle jëloon avance delloo avance léegi su ma la nee soq lagrose ah, soq lagrose hmm. moom Modja non soq di lagrose du jël soq Modja ko jël du jël lagrose mun ta tànde ama neex soq yàlla na ko yàlla defal jàmm <laughs> oh, jaax la mag lan ngay dayoo nguur yi laa xaw Pikine moo naqari sama numéro dañ ko yor dañ may bañ damay bañ xam nga soxla suba damay damay dem dem ci ceeree bi damay tudd yéen si. damay ko ma ko damay ko ma ko mais diggante di nuyu raxam nag paa bi raxam rax soo ko paa bi. waaw waaw ku nit ku baax di ko nit baax waaw. waaw mais foofu kër mbër la. kër mbër la ngi fa soq ngi fa. ma jënd léegi bana. jëndi mooy mooy mooy mooy mooy yor mooy yor affaire yi. waaw mooy yor léegi mag la bana. tukki woon na soq moo fa nekk maa ndeysaan. soq nit ku ñu ñaanal nit ku ñu bëgg mu am dara ci làmb parce que soq jàmbaar la. sook jàmbaar. te mosul su ñu ne accuma. Mm, mm, mm, macha allah ñu nag mental bi. lan moo si nekk psychologie parce que day break esprit Pikine Pikine bi Pikine dafa métti tamit nag d'une part. mais Pikine victoire lañ xam. mais kaa xamal leen làmb bu boo si nekk amoo sañ-sañ amoo amoo audace est-ce boo ci nekkee. amoo sañ-sañ amoo audace. bay fàtte wax ju bari ji yow dëggal sa bopp si li nga ne. non gëm-gëm la rek. parce que bala ngay audacieux moo tax muy am yenn ndam yi. non si Balla Gaye audacieux la mais boo xoolee soxu sox soxu soxu dafay bëriwaale ak esprit Pikine Pikine bi dafa métti de Pikine bi fii soxu boo xool xoolal ci defet yi ci match ni lam yi mu jigéen moom Marley waaw gars dañ ko weddi dëgg moo neex yàlla. boobu tam si defet la jógee. waaw te si defet la jógee jógee ci Franc tamit soxu am na gën a góorgóorlu. moo ñu xam lan la quoi ñi naan ay liggéey ñi naan ay gàllaaj wala dara. et puis ñi ko teg loxo parce que lamb link la gis nga lamb tey link bi mooy lan link mooy ba ñu joxee say avance ay millions nga téye ko nga ama link non non tey jii tey jii maanaam li tax muy am benn sañse ak benn fugg bi fàtte yenn kër lan la lan la ñu bëri mbëri yi bëri ñi ngi bëri ji mais am na yenn soucis yoo ma eh. damay damay location bu mel ne de moo war a fayal yaayam. fayal raqam yi. Mm. fayal néegam bi mu dëkk. ah mbër mu ndaw la. mbër mu mag la. ay ñaata kase ñaata. non mais doo ko ay million laa la. am gis nga euh, am nga ay millions mais dama satisfaction. maanaam ci nan quoi comme nan parce que boo demee mbër boo xam te ne. bàyyi xam nga tamit benn instant mbër nañ dem uti métier de. ah mbër mi du métier de. Ah. dëgg moo neex yàlla rek. parce que boo xool mbër yi fekk nga leen saison ni ñu leen tëggalee booy ndaw ni ñu leen tëggalee non man du ma la xam du ma xam sama prom sama ménagère ñëw ñime nga kii kaa leen xool ngeen tolloo ba xam ñimente ngeen noonu lañ koy tëggee bari borom daaru secours loolu secret boobu ko war a ñu ko xam ñu ko xam xam bëri man keroog ma gisee loolu CNG dama ci coach yu ndaw yii xam nga dañuy dem liggéey maçon ba ñëw mbëri ndaw yi dañuy dem liggéey maçon ba ñëw sol ndaw mi tamit loolu war nañ ci a de. séddale sa war war nañ a wax de. mais ndaw ndaw yi a àndoka lu nekk lu am solo waaye diggante Balla Gaye ak Tapha Tine démb Balla Gaye am na ndaw si kaw Tapha am na ndam si kaw Tapha Tine mais Tapha Tine démb waaye la fa amoon démb. du ma ko wax dañ koy xool te dellusiwaat. te dellusiwaat Balla Gaye Tapha Tine. mais rek jàppul ci dara. ma nga gis ngeen làmb dafa am sud bi ngeen xam daan na ko nee nañ da koo cabaxal waaye cabax lu eggu tafatin daaru mhm. Balla Gaye tafati Balla Gaye am ndam amati si kaw tafati mhm. ñetti yoon ñetti yoon daan ko mbapat daan ko 2013 daan ko 2024 Tapha Tine nag war naa xoolaat boppam wax ak tak ay mbokkam. bala Gaye ko daanoon Balla Gaye ko daanoon. moo ko daan ñetti yoon. Tapha tin dafa yeb waa Bawol. mais lan que ma bëri na. non maam respect gis nga nit. Mm-hmm. boo jugee ci gox. Mm-hmm. da ngay jox sa waa gox cër. xam nga gox sa cër gox jox euh, euh, ni ñu ko ci waxatee. jox cër sa waa gox. Mm-hmm. làmb foo mu góor la waaye ku daanu rus. dëgg la dañu waxante dëgg. parce que mënu ma comprendre yow nga jël say millions. ñoom bëri duñu sonn de. mais seen supporters ñooy toog ci mbedd yi di werante dëgg la di xeex seen supporters ñooy werante di xeex gàcce gi ñoom lay gën a daal nit dinañ daan sa mbër nga man nii bu ma ko nëbb daan nañ fi ëmmat seen Modou Lo damaa miir ba daal <laughs> turbine arène nationale quoi sëñ def ba coow parki borom Touba ndeysaan ba mu ko cabaxalee parki ah. ma man la cabaxal far dafa doy waar quoi c'est que direct waaw gox dafa bokk par exemple mu ngi mel ni géejawaay boo dëkkee géejawaay da nga koy tiitaroo mhm. piccu géejawaay sax bu doon bëri da ngay ànd ak moom boo dëkkee bawol piccu bawol sax bu doon bëri da ngay ànd mais Tapha Tine bëri na indi na li mu war a indi indi na li mu a indi mais Tapha Tine baakono mais defete ñëw non bu defet moom a dafa war daan Tapha mais lan la waroon Tapha Tine bu waru dafa bari comme nan seen i jàkkaarloo ñoom ñaar mhm. face to face yu ñu def waaw Tapha il communique mal gis nga nit psychologie bul nangu sa moroom góor di la dox ci maayen Balla Gaye da ko dox ci maayen parce que xam na ni maayen bi baaxul. boo xool seeni face to face bi ñu njëkk a def euh, arène nationale. waaw ba boobu Balla Gaye nee nañ tafaatin dafa teg la li bala gay wax. ñun wóoruñu. waaye toll ni camion. toll moom moo ko wax. Mhm. mais ñun liñ gis tafaatin indi woon na poids indi woon na masse. waaw mhm. ba ko Balla Gaye nee ko lan mu ne ko da ngay dégager ngay dégager. Mhm. keroog boo ko Balla Gaye ne teg lu mu wax. di ko siyaaree sama mbokk bàyyi fa xam nga yooyu. waaw gis nga nit da ngay mën communiquer gis nga face to face lu tax mu am solo. Hmm. face to face dafa doon loo xamante ni bul jàpp ni da ngeen di di ngeen jaay làmb ji c'est hmm. mais nit da yëpp ci face to face. Hmm. sa adversaire mën na la yebee. ci face to face nit dina la natt ci face to face. xool say bët. góor bi xool góor du raf. góor. booy xool góor doo raf mhm. te góor da ngay am mental gis nga Modou Lo du sa mbër mais dara jëy Serigne Touba làmb ji moo fi gën a baax mental Modou Lo haa ilaha illallah ay mook Ama Baldé làmb <laughs> jooj de ku nekk jàppaleen Modou Lo sax di mën na bañ a ñëw stade ah. parce que ci pression yow Modou lu mu subir ci pression ci làmb jooj est-ce que yaa ngi fàttaliku làmb jooju bu baax a baax làmb waar làmb waar a fekk si Ama Baldé mi nga xamante ni non coow làmb ji quoi coow li bi détail bi détail bi wax ji Ama Baldé favori total xel bu dal gis du ma ci yow taw Pikine xëy daf seeni ti seet taw waaw surtout loolu Père jaar Zi Baldé jaar ne coow li bari na Paate Baldé ku ne di polémique mais ama pression bi bari staff moo ko non pas pas pas ñàkk staff quoi mais maanaam ñëwuñu ci combat mais exemple la boo xam ne dama la ko indil ci mental. mental mm. mental bu baax dafa bokk ci ci ci làmb boo ñëw ci arène. Mm. boo ñëw di bëri da ngay indi mental. bu xool pression man na nga tëgg làmb ji ñu koy bëree seen biir kër yow. waaw comprendre mais damay indi sama mental dinaa la wan ni la. je m'en fous de ça parce que Modou Lo Pikine lañ doon bëree si contre am ak Ama Baldé te polémique bi lu muy bëri bëri il a subi. ñëw ci biir stade bi def yaa oustaz taxaw toog di sangoo ay ndoxam yu sell te wóor toog waa Pikine di balballu moom loo buñ la jàppee yuuxu yi fii lacrymogène fii di tàq coow li bari teewul daf ko assumer ok ko ñëw jàpp Ama Baldé bëreeg moom avec la manière. mais Tapha Tine lan moo lan moo pression bu bari fàttanu ko. kon waaye mbër mu mag parce que bëri na fi ay combat mag daan. Mësën oh, non ku daan Mësën daan euh, ki nga xamante ni mooy Elton daan Bombardier ah mais ci ni leen daane tamit boo xoolee daanu ci ci bëre ci xeex la lay dóor su la koree day dóor ba nga nàcc arbitre bi ni mais la moom a jaaxal la moo tax moom bu heure bu di leen kor di leen dóor mm. mais bu parce que c'est la manière parce que man ñu ngi naan mystique nag mystique man yooyu man Eh, eh, non non non xam nga xam nga xam nga ma ne ah. moom mm. buñ ko tuddee dañoo yeb sénégalais mm. parce que Tapha duñ ko fay mm. pendant quatre mois xam six mois fay Balla Gaye pendant quatre mais bàyyi mystique am na ci ah, làmb de mais nga ànd kon dañ di nelaw non maanaam tëddoo di nelaw dëgg la dañ la fay tëddoo dina mais làmb dafa doy waar làmb dafa bëri ay bu njëkk ba bu njëkk ba bi bi njëkkee bëri dañ ne mystiquement da ko atteindre tey ñuy bëri am ñu ne mystiquement engrais ko kon Tapha Tine moom la mooy problème ah, amul ay mbokk peut-être mais loolu man man yooyu duma ci focus man xam ci lan laay focus. waaw ci ci ci ci sport ci sport bi. maanaam mooy cadre de sport boo jëlee musique technique ci état de hmm. bu joxoon gis nga lii bëre la du MMA ba ngay dem xaw ma Eric Favre xaw ma nu mu <laughs> dem yokk sa yaram boobu mel ni. <laughs> benn poids nee na tonu nit. nee yi ñoo ko faral mais tubaab yi Tafatine lañ. dem Eric Favre Côte d'Ivoire di génnee ci ndox lamb du loolu. du affaire doon ndox yooyu noonu mu doon incarné ay Eric Favre ak yooyu lamb du MMA du king boxing comme bu cité fa mu Eric Favre king boxing la. moo taxaw noonu ci kanamu Tafaatine. lu mu koy conseillé lu mu koy conseillé. Eric Favre daa xam cabaxal ak roof galgal son combat dafa des contact bi dugg ci suufu Sénégal gii. rey sa bopp rey sa bopp contact ak sa booy eh, njaay tiim bëri na ay xale yu ne ci écrit ba ah lu tax mënut a contact ak ñoom préparer physiquement moralement mais nu mu préparer combat am zéro kon examen ak examen am daa yàqu non examen am dafa yàqu parce que moom tegee ci cadre sport bi man foofu laa koy moom dañ ko tegaloon dafa neex couronne empereur boo ko daanee dem bëri ji roi des arènes. Ah, moom waaw parce que moom nii la waroon moom moom la da doon taxaw. ci la après si te jël. Modou moom mu jël Balla Gaye moom mu jël Balla tax jël kii bi mu jëlee Balla ah. Gaye waroon na noos soofu. Ah. dem yoonam. ñu naan Balla Gaye pare na mais Balla Gaye bi bi bi mhm. taxaw dëgg boobu Tapha Tine xàcc ko mu song Tapha njëkk a dem. moo xàcce. moo xàcc moo ñëw Balla Gaye fekk si ko. Balla Gaye na bëgg na éliminé kii ci lu gaaw. waaw mais mu dem ay le digne fils de ba Less. la fa fekk daa mel INSEPS la demoon. waaw Aziz Dia yóbbu ko INSEPS mu entraîné ba am doole. voilà Balla Gaye dafa am doole. fo digga dafa Balla Gaye 2 ba ma ko gisee open press mu ñuul kuk. su ma sol kër. mbër du xees waaw mbër ngay ñuul. Balla Gaye 2 dafa ñuul kuk. ñëw dugg ci biir stade def na tour de stade. waaw daw géejewaay mettraat ko en confiance ni ko da nga jógee ci sa digganteeg Boy Niang ñu baal ko parce que boobu ku ne jàpp na ne Balla Gaye 2 da ci jàppee Boy Niang da koy daan mu ñëw mu doon surprise Boy Niang 2 daan ko avec la mu ñëw war a changer li nga xamante ni war a rectifier ay erreur yi mu defoon biir géejewaay moo tax Balla Gaye 2 tamit ay bu daanoo bu ko arrangé dafa mel ni Balla Gaye daa mën combat décrit parce que combat yi nga hmm. jàmbaar jàmbaar da ngay yooyu tey boo jëlee Eumeu Sène combat yu gën a nekk ci moom soog. da cee génn Balla Gaye parey Ama Baldé parey euh, Modou Lo parey jàmbaar combat yi gën a métti ci yow da ko war a jaayante. Mhm. Balla Gaye de démb dafa def défi. dafa def défi. il est l'empereur